ah ci wolof ñu ngi koy mën a gàtteel mooy comme yéen ñëpp ni ngeen ko déggee tey xam ngeen ni ah, takk der yi teg nañu loxo kii di Ousmane Sonko bañ koy teg loxo nag ah, lay ba ñu jiitaloon mooy ni dañ fa doon sàcc téléphone portable loolu nag yaakaar naa ni lu toll ni Ousmane Sonko soo nee da doon sàcc téléphone portable yaakaar naa ni du ma ci sori mhm. donc bañ ñëwee fii téye nañ ko maanaam téye boo xam ne mënatul dem ni ubbi nañu enquête enquête ba nag bañ ko ubbee am na yeneen yuñ ci yokk maanaam mbir yu bëri yoo xam ne jotoon na fay xew mu mel ni dañ koo bëgg a teg ci kawam mooy maanaam euh, nu ma ko mën a gàttalee événement yi fi jot a am yëpp enquête bi ubbeeku ne jeexagul donc fu ñu toll nii ci loolu nañ ci mën a wax gis nañu aussi ki nga xam ni moom la yoon di dénk di toppee am na communiqué bi mu def ñun am nañu sañ-sañ tontu ci loolu yëpp mais comme tey dañu leen bëgg a wax li xew rek euh, suñu dajaloo ñun itam euh, ci wàccoog euh, charte yi nga xam ne moo ñu tënk nañ jàkkaarloog askan bi yëpp wax suñu xalaat ci loolu yëpp wax la ca nekk yëpp wax aussi yem sa nga xam ne nañ fa mën a yem donc loolu daal laa leen ko mënoon tënkal ci gàttal. comme état d'esprit actuellement ça va ah, loolu am na loo xam ne jarut a parce que Ousmane dafa nekk nit koo xam ne nit ku dëgër la c'est un homme de principe c'est un homme ferme c'est un homme qui psychologiquement très fort maanaam. Euh, li xew ni yëpp dara jaaxal ko parce que taxawaay bi mu am moo waral loolu donc loolu amu lenn lañ ciy xalaat euh, ci wàllu wérgu yaramam itam ngeen jàpp ni mi ngi wérgu yaramam yëpp loolu aussi amuñu dara luñ ciy xalaat. Euh, mhm. fan nañ ko bàyyi nag. incha allah nañ ànd ak ñëpp topp mbir mi. maître euh, wax ni bu fekk ñu teg ko loxo loolu yaakaar naa ni moom mooy li ëpp solo. ci li ñu jàpp tey am ngeen fan yi yëpp ñu génn dinaa ko bamtuwaat sax ci tubaay tubaab da ngay dégg nit ñi di wax naan àtte euh, nañ ko kañ nañ koy jàpp nit ñi di ko werante nit ñi di ci àddu waaye ci wàllu yoon yoon la mu wax mooy il faut que nit ñi xam ni àtte bi nga xam ni mooy àtte contre Macky du àtte dafa nekk ate boo xam ne dañuy bañ su ab mbir xewee da nga xam ne dañ ko war a topp ci benn diir balaa diir bi jeex ñu am pexe boo xam ne nañ yokk diir ba tax na yoon nee na su fekkente dañ laa àtte contumax suñ la jàppee rek àtte ba yëpp nen na euh, beneen euh, décision bu ci tegi woon itam neen na kon boog ngeen jàpp ñi pour ñun àtte boobu ñu ko àtte woon ci wàllu contumax te loolu bëral nañ ko pour ñun àtte boobu amatul il faut loolu mu leer donc pour que nul n'en ignore Mm-hmm. Et c'est un aspect qui est extrêmement important. Vous savez, euh, la procédure qu'est la contumace, dont beaucoup de personnes parlent et ne maîtrisent pas toujours les arcanes, n'a pas pour objectif de poursuivre une infraction. Elle a pour objectif d'empêcher la prescription de l'action, c'est-à-dire l'écoulement du temps au terme duquel, si une infraction n'a pas été poursuivie, elle ne peut plus l'être. C'est la raison pour laquelle Dans cette même logique, la loi considère que si la personne qui fait l'objet d'une condamnation par contumax est arrêtée, la condamnation et toutes les décisions qui en sont la suite sont anéanties. Donc pour nous aujourd'hui, avocats de Ousmane Sonko, nous considérons que cette décision n'existe plus dans l'arsenal juridique, elle est anéantie du fait de la loi. Ça également, c'est extrêmement important que vous puissiez le retenir. Et donc, en aucun cas, M. Ousmane Sonko retenue du chef de ce jugement. Je vous remercie.